Les membres de l'Alliance des syndicats en dépression ont procédé à une marche pacifique nationale ce samedi 27 août à Thiès. C'est pour euh, le respect des accords signés avec le gouvernement, la libération de leurs camarades de Tiaon détenus ainsi que, je cite, la lutte contre l'arbitraire à Wurusogi, Danibou, Davo Une bande de malfaiteurs a été appréhendée à Yemen Comico. En effet, une enquête ouverte par le commissariat de cette localité a permis de démanteler ces bandits. Selon Libération, tout a commencé le 24 dernier. En pleine journée, des individus se sont rendus dans une maison euh, en prétextant chercher quelqu'un. ensuite enfermé dans une pièce les trois femmes trouvées sur place avant de voler de l'argent, des bijoux et des téléphones portables.

En Afrique, l'aviation éthiopienne a bombardé vendredi Mekele, capitale du Tigré, ont annoncé les autorités rebelles du nord de l'Éthiopie et des sources humanitaires peu avant que le gouvernement fédéral annonce des actions contre des cibles militaires au Tigré. Au Burkina Faso, le président Paul-Henri Damiba a pris des décrets réorganisant l'armée. Des régiments et bataillons ont été délocalisés. autorise aussi la création du 26e régiment d'infanterie commando à Boromo dans la boucle du Moukona. Il a également dissous le groupement central des armées. Nous terminons par l'espoir. L'international sénégalais Diawabande Keïta a signé ce vendredi au Spartak Moscou jusqu'en 2025, informe le sur son compte Twitter, un nouveau contrat qui vient de lancer, le Lyon était au ralenti depuis la fin de la dernière saison de Serie A. Yobade Kaida va donc découvrir le championnat russe pour la première fois. C'était tout pour Merci de votre attention.